soxna dama la soxla. foo jógee ci biir. Euh, waaye ci biir laa jógee joor laa doon seet. waaw ah. DG mi ngi fi. DG nekk fi mais booy yow yow quest a yow deux jours a ngi nii ma lay romb ngay toog fii qu'est-ce qu'il te yow fële bureau ba yaa fa doon ndékkee lu xew. oui monsieur dama am problème dama am ay problème yu graaw ak DG. problème problème lan. Euh, xam nga. DG dafa am benn benn réseau boo xam ne daf ko tegoon quoi benn réseau boo xam ne ay jigéen lañu mais man maa doon gérer réseau boobu ñooñu nag dañ doon dem di wuti ay information di ko dugalaat ci site bi quoi mais ay information yu positif rek quoi pas yu négatif xam nga mais man dama ci infiltré woon Anna quoi. Anna fa la nekk depuis hier maa koy woo mun ma ko jot xaw ma ci xale bi fa la nekk quoi. loolu fan la xale bi dugg mais ah, d'accord d'accord bu daa waaw ñëwal dama laa soxla non non non nekkuma sama bureau maa ngi ci salle d'attente gaawal dama laa soxla très vite waay waay waay déet waay waay waaw ku def lii buntu kër kenn du ko fa génne ah barki démb laa ko yóbbu ci menuisier bi ah ah mu ne am éducation yéen yéen yéen yaru leen waay yéen eh eh dellu buntu kër eh buntu kër naa ko rëm rëm rëm rëm rëm rëm taxawaay bi pour lan la bu fekkee da maa soxla danga ñëw jël siège bi nga toog yéen yaru leen respecté leen ma ay waaye xam leen waaye maay kan waaye mu di réew mi am ak nu maa fonk yéen bala ngeen maa xam rek ma dee ah ah jox leen ma sama cër waay ndi jaay du tuut waay xadi caam ndi jaay du tuut baax na daal waa ndi jaay ndax man bi ma fi duggee léegi wax naa la fi lu jaral sa énervé. non dama man maa bëgg ngeen jox ma sama gëdd rek respecté ma rek. Hmm? waaw man maa bëgg loolu man maa bëgg ku ma fonk rek. waaw man bëgguma daal ku may caaxaane daal bëgguma loolu. waaw sax moom turu nanaa laa ko joxoon parce que man xaw moo ni sax doomu DG la am benn jour ma gis ko mu ànd ak benn gaayan boo xam ne gaayan boobu man xam naa ko caawan bi bandi la quoi te gaayan bi mën na ko exploité mën na ko nax quoi ma ne noo graaw lii moom damay jël dem ci DG informé ko koi pour ñu retirer booy bi génn ko ci ci ci link bi quoi génn ko ci réseau féminin bi quoi ndekete booy bi doomu DG la bi ma ko ko wanee ci la ma dàqe quoi xam nga. mais réseau lan link lan yéen lu ngeen di mel ni mafia nii comme des terroristes ah. non comprendre de ce que ñooñu noonu ñoom ñoo doon indi ay information ci biir kër gi rek quoi mais ay information yu positive la du information yu négative quoi xam nga mais nag dama ci boolewoon booy bi. Oui, déjà. Oui, ça va, ça, ça va bien. Ça va bien. Ça va, naka def. ça bi. ça voilà donc euh, dama la wowal woon parce que j'ai une mission. mission. pour toi très importante nag. boo xam ni dama bëgg nga doxal ma ko proprement. Mm-hmm. xam nga Omar. Omar Omar bi malam la ah bi ngay hmm. Omar Bouda dama yaakaar dañ ko yónni ci man dama yaakaar il est en train de travailler pour mes ennemis léegi dama yaakaar il est devenu un pion sama ennemi c'est pour ça que je te demande de surveiller pardon si de surveiller bu ma xam lu muy def xam lu muy wax xam fu mu jëm xam kan lay waxal xam lépp ci ci moom xam nga ci parais étonné yaa ngi mel na nga jaaxle ah mais déjà yow Omar man bi ma fiy ñëw yaa ma yëkkati teg ma si juste tey ma jékki-jékki nga ne ma léegi man dinaa surveiller Omar yaa ngi dégg naa ko topp comprendre ndax yow man kay affaire bi dina ma jaaxal na franchement. Euh, tu sais Bouddha dans notre milieu là. dafa am lu muy doxee. Médiane ci Alimar laa jóge yow demati nga ci maar yow looy def ci maar. Alimar xamal na ma ne un million yi joxoo ko ci fukki dërëm. waaw. yow nak nijaay li waral nga tey xaalis bi man lol moy lima jaaxal te tamit seddu ku la tuddal 1 million nga tal sa yaram bi yeb bam tak yow nijaay lan la lan nga bëgg ci 1 million yow xaalis bi lokoy koy khadija man duma sama sa sama rom duma sama rom du ah ah Alimar moma yeb deug deug deug deug Alimar moma yeb yëpp ah. Alimar moo ni la moom moo jël un million ci sama loxo mais booy bii moo mën a fen ah, ah. nag teeral mi ngi la enceinte ñu ngi lijjanti enceintement bi muy wër di ma waaye la fii lay moo jël un million samay loxo moom moo mais kii moo mën a fen. man Alimar tu un million. Ah. Omar vous jouez avec le feu Vous vous avez 5 ngi Diop non non non à travers yow. non non non je ne bolé pas booy bi ci réseau bi ko quoi parce que copine ma Fa, présenté faa moo présenté bi réseau pour quoi. Omar Omar Omar vous jouez avec le feu Omar vous jouez avec le feu mais vous yéen du ngeen a changé nit à la société hein? mais lan ngeen a ay terroriste combien de fois la la avertir ne le méfiez-vous de job? hein? xale bu nga chercher du travail hein? hein? Dans ce les amis d'aujourd'hui mmh. peuvent devenir les ennemis de demain. comme les ennemis d'aujourd'hui peuvent devenir les amis de demain. Mhm, mhm. Donc c'est comme ça qu'on vit. On Omar tout le def a quoi d'accord de toute façon je l'ai renvoyé D'accord. Hein? mais dama bëgg nga toppal ma ci biir qu'il bi lu muy ma mais li ma wax voulez am. waxu de la un million. 1 million yi nga jëlé sama yaay. waaw. té la sama yaay laaj la nga ne ko jox nga ko Alimar Alimar néna na fukki dërëm man loolaa la wax waxuma la ba tay mom daf la jox 1 million parce que ko len lool xaalisam ngeen yoron yaakaarna ni xaaliss ba jox ngeen ko ndekete joxoko ci fukki dërëm jaay génneel xaaliss bi. génneel xaaliss bi man bu len ma yëngal non non non man duma sa morom duma sa morom yow bala nga yëngu ma yëngu ma la dàq yëngu fofu man mi doonoon sa ndijay man ma la dàq yëngu fofu gis nga keroog bi nga juddo ñu dakk sa bay ci fu mu doon liggé ma yëkëti 300000 tek ci sa loxo yi ndey ñu ngënté la waaw tay loolu bo yar woon do ko dégg waye tay dégg nga ko tey man duma sa morom man sa nijaay laa damaa bëgg nga fonk ma xam man may kan dëgg la waaw gisuma ay 1 million buma kenn wax waxe 1 million ndijay ji de kenn mënu ko raxas waye li do nga ñu mënal maak sama yaay fo toll diñu xass diñu toroxal te luñu am do ko baaw ak ñun waye xamal nak 1 million yi nekul luy nax saay je sais que tu es intelligent tu n'es pas bête tu es intelligent ni mu mënoo exploiter sa xel bi ci lu bax mais di dug ci lu lendem lu lendem lu lendem han ah, deux jours ngi ni malay romb fi han ah, ah, han ngay mel ni dof ni comme ça han son trop tu te service ba ya fa doon njëkk ah fa nga daan ndékkee léegi nag tu as des problèmes diko carfi du escorter këram han ñu bal mako fa ni yep yëpp añu ma. ana ana. ana mang koy wo munu ñu fexé ba jot ko ken xamul fan la nek dafa figé quoi même DG sax mi ngi koy wër gisugo xam nga dafa figé.

nan lañ ko yónnee ci yow ba pare comprendre nga bëgg koo libérer noonu mu dem mais faaw tamit nga xam li tax ñu yónni ko ak tamit lan moo waral mu ñëw. village je suis très content li nga ma wax dëgg la. Mhm. xam naa ni dama xaw a mer moo tax ma agir nii quoi mais c'est ko que ma ko dàq. moi j'ai l'habitude de garder mes ennemis. tey mhm. dama xam nga message. Massar oui. Massar laajte mu sama xarit la nekkoon fi ci service bi tout ça fi kenn xamul. Uh-huh. mais bien xamoon naa indi sa contre moi ah, na ñoo xam ni comprendre bu ñu dee say ennemi da li ngay euh, bëgg mhm. mu dellu si. Mhm. xam ma bëgg nga indi un million yi génne ko ma joxi ko borom sinon du nee nga defoo si dara joxu joxu la dara. joxu ma dara waaw man may ki tunggu na du teew ñuy natal waaw pour raxas sa der nak ba mu set pour ma may la jàmm yow na tungu ne ñew na tungu ne ñew waaw pour ma may la jàmm waaw waaw iya, pour ma may la jàmm rek waaw damay wo alemar waaw au parleur ko muy wax ngay tontu bu ko defé bu boba nak man dina xam fu ma féete woko woko ki lu muy def nii déet woko rek woko woko waa ki lu muy def nii woko soobe yàlla doo ko da nga bëgg a tiñal nijaay sama téléphone juddu barki dem bëgg maa tiñal man ah yow da nga mën tiñal man dina la baye ngay wo Alimar ci ñak fayda yi. waaw léegi kon kay lepp leer na. kon kay leg lepp leer na. yoratul may wo ken yow yi man dal man man yeen jaxal ngeen ma man da doo ma tojal man lima nekké rek dama loyal su delu sen nak nga def ko ni mo yoon bu ko may dara. lepp lu muy def lu muy wax na ko xam. dëgg la je peux compter sur toi. non déggoo li la wax. fi mu toll ni service bi mom je suis le nouveau DG. est-ce que dégg nga baax li la wax. lepp dina ko gérer ni mu waré bàyyi ko sama loxo. bàyyi naa ko sa sauf que buda Bouddha. Hmm. tu n'es pas le nouveau DG. ah bon. tu es le nouvel homme fort de DG. ba tey. <laughs> d'accord. mais amul mais xaritu DG DG la. oui moo DG hein. je suis content de toi. tal ma ko sax. xarit ci am ma. dama sama téléphone ma. bàyyi leen ma ak un million. parce que sama un million. dégg nga million. dama soo jooyee ba pare nga jox ma sama téléphone. ah seen yii ko ma. toppatoo sàmm bi. seen yi ngeen def yéen de yéen yéen xamoo leen sax ki ngeen ko a nekk ay mag yu trian di ngeen xam ne xale bu ndaw moo leen di di jël sama téléphone mi ngay trian sa bopp ndaw. Eh, sonn naa sonn yooyu eh, billahi sonn naa ci yooyu eh, waaye yow kenn gënu laa réew. waaye xamoon naa ni ngay mel à l'âge de ngay dindi sa couche bi di sànni ngay dindi sa couche bi di sànni bëggatoo ku la couche yow xamoon nga ne di nga di nga enceinte wu yow. chien bàyyi leen ma bàyyi leen ma ak un million man gis sama un million. sën sën doyen daa am loo xamante ni moom moom laa tudd te ba léegi joxaguma ko moo tax saa yu ma ñëwee rek woo la ci jardin la xam ne du ci dara nag mënu nga egg ci biir nuyu ko nag ah, ni ñëw nga fi lu ma ba léegi nag loolu matagul moo tax chaque fois su ma ñëwee duma ñemee dugg damay toog ci jardin bi ne la seen exil. Ah. li ma ko digoon la de. <laughs> dara nag loolu dara masaar mënu nga egg si ah. nuyu ko. bu la fi déggee moom tay nga dee baax na daal xam naa ko xanaa yaa koy wax xuloo kat la <laughs> baax na <laughs> waroon ngaa egsi nag rek benn yoon waaw mais c'était c'était à propos de encore Bouba encore Bouba Bouba man Bouba Diop notre Bouba notre ami Bouba daal euh, yaa nga certain yaa nga gosse Oumar xam naa xamoo ko d'ailleurs moom da ko recruter sax mi ngi foofu di je sais pas mooy ba mënu wax lan lay liggéey ci service bi moom daal day dugg ko génn en tout cas c'est l'homme de l'homme de confiance de Bouba donc mom moom la gis mu ne ma pour ma dox sen diggante moom ak buuba parce que dañ am ay problème maniko lan lan la lan mooy problème bi mu ne ma no man dama dañu créé won ben link xoma ben link ben réseau xoma lan buubaa leen doon liggéeyloo pour recruter ay xalé yu jigéen ainsi de site yoy pour xoma site bi dox ak légui mu ne ma ñom ñu ngi liggéeyloo ben xalé bu jigen sans pour autant xamni ni doomu doomu la Ya bon yow billahi ya jitu, top bokku yanu gaddu mbon yow dugg sama keur tas ko ba tasar lol nga waye dang ci a tout man dal man boy dañ ma jaxal ma len man yeen li ngi Omar li ngay wax ni je sais pas xoma ay réseau xoma ay link mafia terrorisme yeen yeen yeen lan la mune ma non xale bi comme ko dama ko gis muy ànd ak ñeneen ak yooyu te ñun suñu liggéey secret la la la lañ ci bëgg man ma dem avertir buuba ne ko pour ñu génne ko ci. léegi nee na bi mu gisee buuba buuba ne ko mais yow laa fii laa def chaque jour nga may wax affaire am wan ma photo nee na mu wan ko buuba xàmmee naka te doomam la ana c'est ça hein? ma ne ko léegi la suite mu ne ma non après bi ma demee avertir buuba dama dem avertir buuba mu ne ma. Euh, euh, lu ne la ma traité daal nee na ne la ko traité ba menacé sa xol sax di ko dóor ak ainsi de suite yooyu quoi dina léegi après Bouba di woo Anna depuis trois jours a ngi nii nag mënu ko joindre Anna a fugué parce que dafa ragal papa ji daf ko ragal moo tax mu daw donc euh, ci situation boobu daal moo tax man ma ñëw seet si la Bouba nag taxul may wax mais Anna laa ñeewante Anna tax may wax. sama kër gi nga bëgg a détruire yàq suñu vie man ak sama doom. dag cee tuut la bi nga don yow sama don Miriam amul lu mu dajul ngir yow ci say etude ak sa bien-être amo lenn loko fayé fayee dul di dox di wax ci lo xamanteni lu yak sam ñu fii la yow doo ko baax yow ya ma gatchel ba pare di ma romb ci mbedd mi di ma xoli beut di ma di ma di ma tok di ma xeelu lolu sa ñak jom la. Adama Diallo ma tay motax ma bëgg comme que yow mën nga dara ci buuba di ngay waxtaan ak buuba dama bëgg nga dem gis ko waxtaan ak moom pour que mu revenir à de meilleurs sentiments kanta nak set jor euh ah, ma ngi jaawale mok yaay ji sax kanta nak set ana man je ma charge fu mu nek war na ko luxati indi ko mais nak dama bëgg bës bu ñëwaaté ci kër gi que baña am buba wacc à de meilleurs sentiments loolu daal moom ma ci indiwoon indi woon nga wax ak buuba man je ma je vais me charger de de de Anna. Sarr yaa ngi may dugal ci loo xam ne day dina ma dis lool lool lool lool buuba Diop bu mu ñëw ci sama kër gii ma di ko yedd ci diggante ma nijaayam toroxal ba ma buuba Diop toroxaloon ba naga ni mënuma ko fàtte man buuba ba ma dañee ci moom daa yàgg ma Sarr respect bi ma la joxoon. xamal ni raxas naa ko ba mu set du dama laa romb nuyu ma la loo may kare ban waaneeg ban seytaane nga am ma lay romb nga may nga may téye sekkatuma ak yéen loolu mënoo leen maa bay tey may ma jàmm te danga nga sama biir bi ngeen tibb damaa bëgg ngeen yàbbi ko yow ak sa doom ak sa jëkkër te xam ne mënoo leen ci tus dara mënoo leen ko ci sama biir bi nag moo feeñ rek waaye sa doom moom di Mariam xamal naa ko loo xamante ne bis bu ko waxon yow mi di ndayam nga raxasu ci mom tous nga ko xamalon loko xamal wax ko legi tous nga ko xamalon wax bu xale bu bon bi nga doon ñaanuma won yalla nak nga ñaan ma lo xamne ne ko def ndax fi nga ma féete la bat nga rak nga nangul nga ba déggal nga ma am nga sutura am nga yar jox nga ma sama cër waye buma sañon nak tay ji jii ma ñaan mukk mënu la def tay rek nag nga ma mos ñaan luma ma diis Dis diis te ba tollu fi gis na ma lol lol lool mom euh moom sën sën la buba buba mal mal la gëna a buba on est des amis d'enfant bi nekk xalé bi la ñoy and buba mom wax ma ay affaire mak wax ma léeg léeg léeg léeg c'est répétitif rek ñepp xam nañu mais aussi yalla mo ñu bolé on ne choisit pas ses amis hein yalla mo tax ñu nekk ay xarit dañuy boole li ñu neexee li ñu naqar yëpp mais ci biir xarit yooyu njaboot def ci rax aana sunu doom la man aana tax may intervenir mais bu doon buuba rek rek rek rek du ma intervenir. yow da ngaa xamal kenn dara yow mi nga xamante ni dañ laa biiral nga koy raasaat di ko jiñ ku ne di ko jiñ sa baayu xarit yow yow amoo gàcce. ndeysaan biir bi de fi mu ne nii moo nekk en action moo tax àdduna bi yëpp ci la waaye de au temps si ginnaaw hmm, magum jëmm. mu ngi fi def loo xamante ni tey ku ko ci fekkoon yaay ko ci te mu ngi nii cat taxaw li ko def da fi bonam ba prison fekk ko ci mu nekk fii àdduna la de miir yi sax dañuy wax te looy def nag yaakaar ni nit ñi xamuñu ko loolu yaa ngi nax sa bopp. du ma intervenir man daal loolu laa lay ñaan waaslu ci àq ñu xool comment on va régler le problème man loolu rek laa lay ñaan le rest nag après ay détails lu ci buuba moom àdduna ngi ci ko gis na ma lool lii nga ma ñaan gis na ma lool lool lool lool lool xaw ma nag nu ma lay def nag yow yow laa xamul nu ma lay def rek waaye nag baax na dinaa essayer dinaa jéem a dem ci buuba waxtaan ak moom waaye nag tey ah lu ma wax it yaa ma koy teg nag tey ma ah, da nga koy muñ rek lu la wax. ma waxtaan lu mu la wax muñ ko rek. daal xaw ma lu ma lay ah. doom joojit xaw ma ma koy def ah, moom joor ne kon moom buuba jóg amaana buñ dajante dañoo daje ci mbedd bi waaye man ba ma pare ci moom daa yàgg waaye nag incha allah dinaa fa dem dinaa seet nu may dem rek jéem a wax ak moom ba xam amul benn problème léegi hmm? yow on va s'appeler incha allah man dama bàyyi liggéey bu bari mënoon hmm. ba ñàkk bañ a ñëw hmm. on va s'appeler pour xoor pour xoor la suite d'accord incha allah allez la rek bis bu la yëgee nga xam li la wax sànq damay xam ne da nga ñëw tey ma romb la ci mbedd yi nga may taxaw di am lenn looy wax ak yow looy wax ak man sekkatuma ko ak yow du sa jëkkër du sa doom ndax ni ma raxasoo ci yéen na ngeen raxasoo noonu ci man man faalewu ma leen lijjantiwu ma leen lu ngeen mën ci lu ñaaw ak ci lu bon def leen ko lijjantiwu ma leen sax sof J'étais à la journée mondiale des détenus. Ah Ouais. Euh, bien, tu as été finalement Voilà, j'étais. Euh, hein. J'en ai même profité de visite aux maisons carcérales, en fait, dans, leur chambre. C'est ça. Voilà, mais j'ai vu, en fait, mais directeur, la situation des détenus reste à désirer. une chambre c'est catastrophique C'est un trop trop trop trop..! li euh, un empaquetage réalité. c'est une réalité. mais comprendre parce que da ngay ben chambre boo xamante ni c'est c'est 32 mètres carrés ou bien voilà 16 mètres carrés ñu def ci plus de 100 personnes. ak tàngaay bi ak tàngaay bi am na yoo dañuy nelaw taxaw dañuy taxaw nelaw ba fajar. c'est pas possible. boo teelut dugg doo doo tëdd parce que dañu am yàlla chef de chambre yeeg quelque chose comme ça y a de l'intimidation. on le sait mais écoute il faut qu'on prépare quelque chose sur cette situation là. Adam. chéri ça va. waaw lan la. dara xewul. Adama bu ma nëbb. daawu fi ñëwee nii Adama. lu xew wax ma. lan la. li xew mooy daal. dama génn sama kër. pour jël taxi ci digg diggal bi ma dajeeg Khady Thiam loo xalaat lu ne rek xale bi yàq na ma ko mu yàq ma xete me looy xalaat ci lu bon lu ne rek xale bi wax na ma ko ba xamal ma sax nag sama passé il faut je pense qu'après le dossier, le je pense qu'on va attaquer ce problème-là. D'accord. Hein? Ok, maintenant, où est-ce que tu arrives D'accord, pour le dossier, là, DG, euh, euh j'ai rencontré une détenue. Voilà. mais elle m'a expliqué des choses sur sa co-détenue, je dirais même sur euh, une ex-co-détenue, parce qu'elle n'est plus en prison. Mais ce que en fait, euh, ça m'a poussé. Mm-hmm à aller me ressourcer vers la banque de données de, leur système d'hôpital. On dit que tu as piraté la banque de données, mais c'est ça, hein? mais je, sais, hein? tu as piraté. Et c'est une bonne chose, hein, de toute façon. Mais ça, ça, a été dans la facilité, parce que euh, système hôpital, prison et partout, par exemple, hein, au niveau du Sénégal, en fait, le système ne s'est pas trop protégé. Ça a été une facilité. Tu sais, dernièrement, le chef de l'État a fait une sortie pour demander aux gens qu'on protège mieux les, données personnelles des gens au niveau des banques de données. C'est normal. Parce que les gens sont, sont devenus vulnérables. Hein? c'est normal, Les gens hein? doivent s'engager. Bon, de toute façon, euh, nous, si nous, si nous ça nous, intéresse, ça nous, ça nous arrange un peu, non Ça nous a permis voilà, parce que quoi <laughs> Voilà, c'est bon, on continue. D'accord. Donc, mmh. DG, à pénétrer les données. Uh-huh. Euh, fait que j'en ai rencontré la dame, quoi, le dossier de la dame. Ok. que dama xadi jaam yàpp tey xadi wax na ma loo xam ni moo ma jotaleeg sama boroom kër xam nga man dama bokk ci famille boo xamante ni mën naa ne suñu kër man maa ci kàccoor suñu waa kër yëpp ay nitu diine lañu sama papa yar ñu ci ma am erreur de jeunesse nag comme ni ko ñu bari amee bi may ndaw yàlla dafa def dama doon bëgganteeg benn waay ci kaw loolu yàlla tegoon ma ca nattu ma jële woon ca ëmb ragaloon sam walla wala woon ko wala jomboon mu xam li ma daloon tax na ma jëloon ay risque ne damay yàq grossesse c'est une dame elle avait fait une infraction elle avait subi un avortement. ah. avortement clandestin. ok par la suite il y ko beaucoup de prison. elle en est bave elle en a vraiment bavé en prison. non par la suite il y a de cela 23 ans. Mm-hmm. elle est sortie elle a fait sa réinsertion sociale mais elle a ci dëkk mi ngi super elle a jëkkër donc beaucoup, war nañoo mën a defal interview voilà sur les détenus quoi et tout. mais justement avant qu'on continue ko détenu il est toujours en prison. ah oui non il est toujours en prison il est condamné à vie. ah bon. parce qu'il avait commis un meurtre de rey quoi. Ah c'est dommage d'accord. c'est la perpétuité à vie quoi. mais mais vous vous me dites quand même bahna. tu as tu as des éléments sur elle. voilà j'ai tous les documents sur elle. mais nous ça nous a permis en tout cas. oui oui. d'avoir des données exceptionnelles. yàq ko dem hôpital waa hôpital daal di may dénoncé police jëlee ma fa ñu tëj ma kaso ñaari atu yàlla ma nekkoon ci ay tolof tolof yu metti ginnaaw yàlla sa càmmeñ ji alimaar moo ma fa jële delloo si ma te durant loolu yépp ba sam papa ni muy dëddoo waxul ak man tudduma taasatuma dogoog man la def ma yaakaaroon ni nag loolu jàll na bu yàgg su ma demee ba xale bu ndaw bu fettagul si taxaw ak man di ma di dévoiler samay secret dama am metti am buur ya yàlla parce que Adama nga may nettali dara lu ma ci ump am waaw gis nga li nga may wax li lepp. Buma ko yegge ak legge ëpp na ñaar fukki at Boba yaakaar na ni sëyoo bu wokk aliment bi dama ni tek rek boobu ba ndax lo gis ci aduna. sutura da ci baax te du lu nit xam rek wax ko bu doon loolu kon àddina tukki na bu yàgg kon kenn du génn waaye nag jàllu euh, jéeri li ma lay ñaan mooy gis nga li weesu dama bëgg nga bàyyi ko ci sa ginnaaw te jéem a avancer di xool ci kanam li fàtte ko jéem a la góorgóorlu gérer sa foyer jéem a dox sa dox te léegi nga bàyyi ko mu jàll fi kenn ku ne am nga passé. d'ailleurs la famille elle est sortie actuellement ñii ñu ngi def sa insertion sociale am na jëkkër am ay doom si depuis 23 ans yàgg na nag quoi. elle a une autre vie maintenant. j'ai j'ai là tous les documents soxla. ah oui. très bien. d'accord. très bien. concernant. Ça, c'est sa photo. ça, ah, c'était ça, c'est L'adresse, voilà. Ça, c'est sa photo. Et les autres euh, éléments relatifs à sa personne. Excuse-moi, euh, M. Tal, Et euh, elle s'appelle comment hmm, Elle se nomme Adama Diallo. Adama Diallo, elle est christoise..! Adama Diallo. ñoo xamne tay buñ la waxoon seen bop tay nga bayyi adina man ma la wax ni waaye nit ñi nag fi mu ne nii léegi jël problème adina yi ak yi ñi lay wax di la indil sa passé nga diko ancré ci sa bir xol bii mu di la indil ay cardiaque ki ay tension ay stress lankal loolu ñu lay wax kenn ku nekk la koy wax ma nga ñu ne weng la la wax te ñaan ko kon bul nangu ñu di la nakaru adina ñom di jema dox seen adina diko neexal lankal bo bëggé deug deug deug dal lolu dong nga koy fajj waye bo lu ñu la wax nga ne fa diko gérer ak mu di la indil ay stress ak ay tension ki ay cardiaque yoy ku koy nangul nit ñi mom leen nga déta sa dédu jot jox leen gi avancer waye nak yow tamit jallu ci ay wax ci avancer way adama dama bëgg nga avancer ta li ngir yalla fàtteel li jallu wallahi sax lima dalon nak naqari wu ma gis nga ma ma dalon? dama nangu won ndogal assumé won sama responsabilité teud sama penu 2 ans xam nga lima ma naqari lan la mbokk ni ma gëna proche ñoom ñoo di dévoiler sama problème lolu moma ma naqari mais lima dal dal na ma ca goga jamono ma dund ko na ma ko war a dundee ba góor ñëw ma yaakaaroon ni sama complice la moo ma koy teggil tey anamu tey jëkkër bu la xamalee xawi sa sutura sa mbokk ba la proche xawi sa sutura kon tey kan rek ngay am confiance ci moom man lii moo mën a xari de du li nga xamante ni damaa daloon muy sama erreur de jeunesse mais kan ngay dem ci moom di confier wu jamono fi mu toll tey loolu mooy lii tàng sama xol Docteur DG euh, Oui, monsieur Tal, je, je regardais un peu mieux la photo. Quoi. Oui, oui, oui. Euh, Monsieur Tal, excusez-moi, je regardais encore un peu plus la photo pour bien euh, un peu plus pénétrer le personnage. Soit. Bon, amène le reste du, du, dossier, non Oui, tous les éléments relatifs là, à hein. sa personne sont là. Ok, c'est bon. Tous les éléments sont là. Adam. bu mbokk baaxoon ndox togg jën waaw te ku doon rey say noonu say mbokk jeex mënoo ci dara yonent bi salaaw salaam moo la gën gën ma gën ñu T'as ñëpp te dafa amoon baatu ginnaaw bi ci ay biiri mbokkam yow yaay kan yow yaay kan kon ba kenn du la ko waxal waaye moom daa boole lépp muñ teg ci loxo yàlla ba yàlla fayee ko lim ko fayee tey kon muñal du mooy suñu royukaay dañu jéem a munoo loo dégg jéem koo faj wala loo dégg jël ko poosé ci sa xol bii bu yàggee nga cardiaque dee jéem a la li ci sa ginnaaw romb na jéem a la avancé waay ah tegul gestooti li ci sa ginnaaw bu ko xoolee te mukk mukk mukk mukk aadama Je vais, je vais donc l'exploiter. Non, non, non, non, non, non, non c'est bon, c'est bon. Je pense que le temps, je vais dessus moi-même. Euh, ensuite, je te reviendrai le plus tôt possible. Hein? Mais même avec ma je ma chorco de ce bien. Hein? Ensuite, je te reviendrai. Merci, merci beaucoup. D'accord. c'est elle. C'est la femme de Ali, d'abord Ali là, Mais qu'est-ce que je vais en faire Qu'est-ce que je vais faire